jërë ngeen jëf walkati fëriñ yi ci réew mi xéew nañu seen fëriñ bi xóoyal ko jox état bi mu duggee ko ci marché bi l'observateur xëy dañuy xibaar ne meunier industriel yi fayoon seen i machine lànkoon ne duñu walati fëriñ ndax réeroo ga amoon seen digg ak état bi leen doon wàññiloo njëgu fëriñ bi meunier dellu nañu gannaaw teggi nañu seen tànk ba defal état bi li mu bëgg li tax ba loolee mën a am l'observateur ne nañu bokk na ci médiation bu ca bëy di añ def ànd ko nag ak Ousmane Bay mi jiite fekk fa lépp moom journal l'observateur teg na ci di ñuy wax ne ne doonte ñoom mëñee yi li ngànkoon yàbbi nañu ko teral waxtaan yi dafay wéy seen digg ak bi moo waral ñuy séentu tey ji ay déggoo yu am solo ci diggante Serigne Gueye Diop ministre bi ñu dénk industrie ak commerce ak mëñee yi ci Sénégal ñoom mëñee yi Walf Quotidien mi ngi ñuy xamal li ñu bañoon mu di wàññi njëgu fëriñ bi nangu nañu ko léegi Le Quotidien mi bind na ñàkku mburu gi ñu doon ragal ba jàppale la ci seen liggéey ndax bëgguñoo jaay di perte journal L'As xëy leen fay ba duñu wax ci xëta mu njëkk ne mëñe yi dellu nañu ginnaaw ginnaaw pression teg suñu def mooy teg benn jéego ngir defanteeg état bi ba mu yàgg ñu teg ñaari jéego ngir dellu gannaaw ginnaaw loolee nañu seeti président national ci soleil national moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ci xët mu njëkk yéenekaay bi ma nga fa solu ba mel ni wutkatu pétrole démb la woon ba mu demee doon visité ji plateforme ko mbiccum boobee lii quotidien mi ngi ñuy xamal ne bu lépp jaaree ci yoon diggante jàpp 2027 réew di Sénégal war na ca amee ay recettes yu toll ci milliards yu toftal millions ak exploitation pétrole bi ci réew gis na ne jaadu na te wareef la ci ñi jiite réew mi ñu wàññi njëgu courant bi wàññi njëgu carburant bi ñoo ngi seen tut aw yorin wu leer mu di gestion transparente ci pétrole bi lu ci mën di tukkee doon lool askanu Sénégal yépp danañ Serigne Goundou ak fa Fadel Baro président ma jàmmi gox yi xëy na leen samañ ay dëggam yu weex xàtt ci sursoi pilier yéenekaay bi Fadel Barro ma ngi fay wax li ñuy def jamono ji mooy gouvernance spectacle seen lépp ci leen ma ak ci wutum ko teg bës boobeek spectacle googee nguur ñoom Jomaay ak dëkkee Fadel Barro ne feeñati bu yàggul ci tabaski gi ak seen ministre transport bi di Malick Ndiaye mi bàyyi bañ a suba la mu dajale ay bus Dakar dem dikkam leen dem xëppi leen ca gare des beaux xeex gu mu doon xeex miir bu ñu bëggoon a jox ay doomi Turki moo taxoon nguurug Macky Sall tëjoon ko ci kaso bi mu ne malheureusement tey ji li ñu gis mooy ca ginnaaw miir boobee fa la ñu tabax Azalaï hôtel di hôtel boo xam xam ne keroog ngoonu 24 mars ñi gagné élection yi fa la ñu leen fekk doon leen ndokkale félicité Diomaye Faye mi ñu tànn def ko président de la République Fadel Barro mi ngi wax ne dañu ko war a jàppale ndax talul dara tukki yu bari taxaw wax ko askanam sax mënu ko talu ko li mu tal jamono ji mooy tukki ak tambang tambang ju amatub àpp loolee ci la nekk jot na mu dakkal ko te jublu ci soxlay askan wi nee nit war nañu leeral askanu Sénégal li am dëgg-dëgg ci deal bi ñuy wax ne moo dox le jour mi ngi ñuy wax ne ñi koy xaar nar nañoo xaddi ndax du doon léegi Abdou Sané bokk ci parti Pastef nañu ci journal bi li fekk assemblée nationale bu bees amul premier ministre Ousmane Sonko du defi déclaration politique générale Alioune Souaré nañu moo ne day ci règlement intérieur assemblée nationale bi ci la Amadou Ba demee woon assemblée nationale defi fa déclaration politique générale waaye Yewwi déposé la ko ab motion de censure mu ñëw géré ko Ousmane Sonko miy woote jubal ak jubante Alioune def déclaration politique générale ci délai bi wax na xam ne def nag njubadi